ok il faut activer tous les gars yi nga xam ne ñu ngi ci banlieue bi commencé a yëngal amul affaire oh, comme ni ngeen ko déggee de instant bi nii nii heureusement ba président Ousmane Sonko prévenir na leen yéen démb yéen ñëpp sénégalais yi. teg ngeen ci seen bët yéen ñëpp teg ngeen ci seen bët waxoon na leen que ni gars yi dañoo bëgg comme amuñu dara ci dossier bi dañoo bëgg créer beneen affaire dans l' affaire. xam ngeen li ñu leen wax dañoo bëgg a créer beneen affaire ci affaire bi comme ils n'ont rien contre Ousmane Sonko bi nii dem nañ instant bi nii dem nañ fexe ba boole ko ci loo xam yoonam nekku si neen nañu ko trouble à l'ordre public patati patata ci nit koo xamante se nii dangaa génn sa gaale yaa ngi dégg da génn sa gaale dem di wuy ji fan la woo ñoom ñu kar la na ngeen ko xamee noonu à la base bëgguñu woon mu dem tribunal ñoom lii lañ bëggoon mu am ils l'ont toog ci kawam indi ci ay fekk ci ay droit am ko ci ba pare jàpp ko si nit ku dugg sa biir oto nit koo xamante si nii woote woo en aucun moment woote woo ne woo kaay leen ñu manifester newoo woo kaay leen ñu lii ne woo leen ñu laa yow da doon dem say sympathisant ànd yow di la gunge ñu jàpp la ñu ñëw ne doo jaar fii indi seen ay kii tiré ay lacrymogène il voulait créer sa chaos pour mën a créer contexte bu nu ko jàppee instant bi ne dégg ngeen ñu déggandoo ñun ñëpp ne leen jàpp nañ ko di ko yóbbu section de recherche parce que nee nañ trouble à l'ordre nangam sangam bu fekkee ne président Ousmane Sonko moo def trouble yéen xam ngeen bu fekkee dafa génnoon di wuji yéen xam ngeen léegi nag li ci des mooy na Sénégalais yëpp jël seen ay na Sénégalais yëpp jël jël seen ay euh, seen ay euh, seen ay euh, responsabilité Sénégalais yéen ñëpp jël leen seen ay responsabilité fu ngeen nekk ci Sénégal yéen a ngi ko dégg kidnappé nañ le président Ousmane Sonko léegi nii jiiñ ko lu mu deful nekko danga da def trouble te mu ngi woon ci otom dem di wuji ñi ko woo teg ngeen ci seen bët sénégalais yi fu ngeen mënta nekk ci àdduna bi teg ngeen ci seen bët teg ngeen seen bët que ni instant bi nii kidnappé nañ président bi lu ko mënta dal ak lu ko ci mënta fekk ci droit am lañ ko fekk accusé ko loo xam si ni defu ko ñu ne ko da def trouble te moom mi ngi woon ci biir otom di wuy ji di wuy mais il faut ngeen comprendre benn affaire ñoom lii lañ bëggoon ñoom lii lañ bëggoon il voulait créer le chaos il ne vou il voulait coûte que coûte comme président Ousmane Sonko ji na piège bi ñu ko tendroon mooy mu bañ a wuy ji bu ko defee ñu am ñu am ñu am prétexte mais comme il a été bien il a été bien conseillé mu ne damay wuy ji ñoom ñu créé seen ay nervi nekk kon ñoom bi ñu créé seen ay nervi démb recruter kon waroon ngeen xam liñ nar tey parce que tout sax a été prémédité ñun ñii ñun ñi dañu songu nervi yi dañu attaqué bi ñuy attaqué xam naa dañ leen jox suñu situation fi ñu taxaw groupe nervi ñoo ñu songu duñu ay alkaati amuñu benn fonction état mais ñoom nervi yi état fay na leen ñun groupe bu nervi moo ñu songu kon kon ñii xam leen que ni ñii ils avaient préparé leur coup bu fekkoon bëgg nañ jàmm dañu bàyyi Ousmane Sonko mu raam ndànk dem ci juge bi wuy ji mais il ne voulait pas que Ousmane Sonko dem ci juge bi wuy ji donc moo tax ñu créé chaos bi nan ko fii ngay jaar fee ngay jaar tout en sachant que ne ñoom bu leen neexoon seen quatre oto mën naa ñëw encercler ko jaarale ko fi mu bëgg a jaar ñu dugal ko tribunal te coow di jëpp bu leen neexoon seen quatre oto seen quatre oto kese mën na ko escorter yóbbu ko ba ci tribunal bi mais il voulait créer ce chaos te yéen ñëpp teg ngeen seen bët instant bi nii président Ousmane Sonko ñu ngi koy yokkal yeneen chef d'accusation yi leen waxoon démb nee na leen ils essayent de teg yeneen sama ndodd vu que ni seen affaire de viol bi s'est retourné contre eux te bu àggee jusqu'au bout ñoom dañuy nërmeelu il vont essayer de créer leen heureusement que président Ousmane Sonko nous a prévenu hier wax nañu ko démb ngeen koy dégg donc yéen ñëpp da ngeen yéen a témoin vous êtes de ça fu ngeen mënta nekk si Sénégal xam ngeen que ni ce qui se passe est grave ce qui se passe est inadmissible toog suñu kër yi di seetaan lii nag loolu dee moo ko gën nekkatuñ dans une dictature rampante ñu ngi en pleine dictature bu fekkee ne dañuy toog croiser les bras nangu ñii du ñu def lii ñu xam que ne duñ ay nitu dara bu fekkee que ne dañuy jug jàkkaarloog ñii ñu xeex suñu droit ñu xam que ne au moins Sénégal am na ñuy dalal fii ñu taxaw. fii ñu taxaw kiiw lacrymogène yi xet bi yaa ngi koy dégg ba fi ñu taxaw léegi li ñu leen mën li ñu leen mën a wax li ñu leen mën a wax mooy dégg ngeen li ñu leen di wax yéenay témoin de ça la situation mu ngi nii woo nañ ko bëggoon mu bañ a wuyu bu ñu sañoon du wuyu pour que ñu mën koo ñëw song indi gendarmerie indi lépp créer guerre bu ko defee ñu ne dañ koo woo ñëwul ñëw woo ko mu dem wuyu ji leen. yor otoom génn heure bi nga xamante ne bu ñu ko bàyyee mu àgg dans quinze minutes mu àgg ñu créé boucan bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp pour mën ko sëf yeneen affaire vous êtes témoin de ça fu ngeen mën mënta nekk ci Sénégal xam leen que ne suñu responsabilité mooy ñu taxaw xeex suñu ak ak du ñu ay jaam Sénégal bàyyi kenn moomu ko maamu kenn moomu ko ñu ngi dund ci dictature te dictature bi duñu ko nangu fu ngeen mënta nekk ci Sénégal jeunesse bi yëpp lay waxal combat il sa de votre avenir lii bu ñu ko xeexul suñuy doom bu ñuy ñëw dañuy judd ci njaam la ñuy juddu te pourtant suñu maam yëpp ñoom maam El Hadj Malick maam Cheikh Ahmadou Bamba dogal nañ ñu buumu njaam bu yàgg ba xalal ñu yoon bi. bu ñu bàyyi ay quelques francs-maçons ak seen i lobby dugalaat ñu si seen yu ñàkk fayda yi ma Sénégal bi yëpp laay wax ne adduna bi ak jeunesse bi fépp foo leen mënta nekk. fépp foo leen mënta nekk na ngeen xam ni combat bi seen combat ko moom duggaat seen biir kër te bis bu ngeen ko defee c'est fini pour Sénégal bis bu ngeen ko defee c'est fini pour suñu avenir voilà samay batterie jeex na su ma amaatee possibilité beneen live dinaa ko def.